compagnie Emirates di kër goo xamante ni daal dafa yor ay fafal naaw di ay avion ñoom nag càmbar nañu daal bilan bu positif di ngëneel bu ñu gis daal ci seen yëngu-yëngu depuis daaw ba ren ndaxte nag nee nañu daal ñoom def nañu bénéfice su 314 milliards ci kopparu CFA fly waa Emirates nag ñoom wax ni daal am ay produit yoo xamante ni am nañu yéene jagleel ko sénégalais bokk na ci nag ay séjour yoo xamante ni ñu ngi ko jagleel ndaw yi te duñ ci fay dërëm bu àggee ba ca Dubaï ngir naka vacances yi di ñëw tamit ay ndongo wala ay ndaw mun cee vacances yi euh, ab plateforme boo xam tamit plateforme de communication mondiale bu ñu duppee Hello to Tomorrow boobu tamit Emirates taxawal na ko reportage suñu natango Ndeye Aram Touré ci ndimbalu Ibrahima Diané. te ngi nii compagnie bii di Emirates di màgg-màgg bu am solo ren li mu am ci koppar toll na ci 314 milliards ak lu tegal résultat bi li leen ko indil bokk na ci seen expérience ak liggéey gu sell gi ñuy defal client yi loolu nag kontaan loolu directeur régional bu Emirates mu ñuy wax seen secret moom Ernest Dicom di ñu xamal ne ñoom dañuy innover fu ñu toll te dañuy jël xaalis bu bëri di jënd ay appareils yu gën a garanti dañuy recruter it ay nit yu mën a toppatoo client Emirates moom du noppi di jël xaalis bu takku di ko dugal ci compagnie bi ngir client yi di am lu leen gën a neex ci wàllu innovation Emirates yokk na lu toll ci fukk ak benn dëkk yoo xam ni léegi compagnie bi daf fay dem mu dool it lu toll ci ñaar fukki appareil ak ñaar compagnie bi lim ci namm doon na may client yi ñu mën a dem di découvrir yeneen i dëkk te client yooyee am na ay package yu am solo yuñ leen di defal moo xam wàññi leen njëgu billet bi wala xale yi bañ a fay ci vacances yi mbala nga mën a dem visiter yenn bërëb ca Dubaï ak yeneen Dubaï dafa bari léegi li nga xamante ne moo fa nekk tellement loo pour ci xale yi mu nekk ski mu nekk patinage mu nekk euh, ci euh, lii lépp lu ñu mën foowee wax ak loo xamante ne daf leen di yee dafa bari Dubaï léegi moo tax dañ leen di encourager parents yi fekk yenn destination yi yaa tàmm nañ di fa dem yàgg na ñu découvrir Dubaï léegi dañuy fay du gën a cher boo duggee ci avion bi sa télé mi ngi fa euh, boo am na film yoo xamante ne en français la da ngay déglu Youssou Ndour bu la neexee nga déglu sa alxuraan ba egg fi nga jëm avion bi moom euh, si confort bi fa nekk li ñëpp la fa nekk. Emirates di liggéey loolu toll ci mil doomu aadama ñoom ñëpp bàyyi ko fu ne ci àdduna bi jaxasoo boobu nag li ci compagnie bi di wut moo di fexe ba client bu ci ne bu duggee ci avion bi mën a am ñu koy toppatoo ni mu waree ak it gis ku dégg làkkam ki noonu groupe Emirates taxawal na ab plateforme bu bees mu déppee ko Hello Tomorrow loolu nag directeur régional bi di wax ne. liñ ci bëgg mooy rek client bi di gis boppam ci liggéey bi moom Ernest Dickoum ne ñu dañoo bëgg client bu ne mu tàmm di dugg Emirates ba du mën a demati feneen jéego yi nga xam ni Emirates def na ko ñaari at ba mu duggee ci réewum senegal léegi day wane xarañtewu ña fay liggéey ak seen bëgg-bëgg fexe client yi xam lan mooy teraanga dëkku naar yi mu di loo xam ne du doomi réewu Sénégal rek ñoo ko xam ndax Dubaay it dëkku teraanga la te Emirates moyen bi gën a neex ngir mën faa dem.